maa ngi delloo ziar baax baax tey doon bésu mbégte yow nga doon artiste nekk ci réew ñu ràññee la tey sa doomu ndey ubbi butigam ki nga xam ne mooy RSA mu tuddee ko Zeyda yow tamit nga ñëw fekkee li nga xam ne mooy inauguration bi waaw war na a nekk maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp sama frère di leen wax ne leen kontaan naa si liggéey bi yéen moom ñun ñëpp ñoo far lu dëgg lii nag war na mën a nekk parce que Aida liggéeykat comme ni ma la wax léegi dama dama jigéen buy liggéey góor day liggéey mais jigéen tam day liggéey parce boo amee ci aar bi aar du ma jigéen moom mi ngi am jëkkër ma koy ñaanal yàlla sëy bu barkeel moom jëkkëram Abass nekk nit ku baax donc Aida bu xewle lu mel ni ñun ñëppay ñëw par di ko ñaanal mu yokk parce que dañu man dama bëgg bokk man bokk man en personne ma bëgg jigéen buy liggéey parce que jigéen booy liggéey boo faale nga am góor da ngay dem nga ñàkk am góor da dem donc man liggéey bi rek laa fonk kon donc su ma ko fekkee mu def lu mel ni ubbi boutique mel ni showroom kontaan kontaan trop macha allah ñu gis ne jamono ji yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ay artistes di yëngatu ci wàllu showbiz wàllu entrepreneuriat yi ngeen ci yëngatu bu baax di créer di teg ay boutique yow def nga lu mel ni organisé nga fi foire ay de aussi ñëw ubbi comme li ma la wax léegi rek liggéey bi xam ne lu mënul ñàkk la parce que muy man di Aida di keneen ku ci nekk di nga am say soxla bopp yoo xam ne ne ak say nga nekk ay soutien xam nga ku su mel ni Aida mi boo fekkee mbaa nga xam ne seen famille yëpp moo leen uuf man nga fekk moo fu mel ni Koungheul keneen ak keneen kon ñun liggéey rek moo ñu war aar bi dëgg la ba ñu nekk aar bi aar bi la ñu xam mais aar bi du wëy kon donc dañuy liggéey pour soutenir li nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu ginnaaw te yaakaar balaa nga xam ne liggéey moo wóor feet am lu ci mel tabaski korité tam xarit yeneen ak yeneen ak mooy feeti fi am lépp rek doo mën a laaj keneen sa bopp rek ngay laaj ubbi sa compte defal sa bopp donc liggéey moo am solo ku nekk ci aar muy man di keneen soo koy def nga gën ko yokk boo ko defee woon nga commencé ko. Euh, liggéey rek moo wóor ngeen doon ay jàmbaar di dem ku nekk ngeen di demal seen bopp euh, ñu si bëri yenn saa yi dañuy toog seen clavier di leen critiquer te xamuñ lan ngeen di daj seen i liggéey. waaw loolu moom mënul ñàkk mënul ñàkk loolu moom fi leen ko fekk fi leen koy bàyyi ñun bu ñu ñun avant ñun dafa am ñu fi nekkoon nekk ay artistes di dégg lu ne te dañ ko mën ñun suñu demee dafa am ñeneen ñuy ñëw donc loolu moom c'est la vie ñi nga xam dañ toog seen clavier peut-être man damay jàpp ne ñun ñëpp ñoo far daal ñun ñëpp ñoo far. da nga jàpp ne yéen ñëpp yéen a far. ñoo far mais souvent est-ce que tamit du ngeen déstabiliser yenn saa yi. ah man de xaw ma keneen man moom déstabiliser ma yomb ma xaw ma ñeneen la yeneen artistes yi man moom. déstabiliser ma yomb. tout récemment. daf de. benn mbir di nga wax sama kii sama sœur euh, def nga fi benn mbir dugal sa sina indi woon na polémique ñu ne Mbathio lu mu def lii ñenn ñeneen ànd nañ ci parce que moom moo ko tax moom toog lu mu def ko xam na ko est-ce jaroon na aussi loolu am sa diggante ak maman. lan la. say yére bi nga soloon am ku ko dugal aussi coow li bëri. li ma wax si yooyu. booba tey waxoo si. parce que coow li bëri wax. si yooyu ah bon sa image moo ko toll. dama wax si ok ok ah, Maria Zeyna bi gis nañ macha bu baax la am ak famille Ndour ñëpp xam nañ loolu mais gis nga après ñenn nit ñi taxaw tamit seen sax su nekk rek Sénégal daa mel ni mariage célébrité la ñuy mariage moom neexoon na neexoon na trop neexoon na trop mariage bi nga xam ne 15 jours la xama 12 jours neex na trop di ñaanal Zeyna yàlla bàyyi ko ak jëkkëram euh, ñu am ci njaboot bu bi di ñaanal suñu système Viviane yàlla dëgëral taxawaay mariage bu na daal man gisuma si dara lu ñuy wax lu dul neexoon na amoon na classe nit ñi sañse nañu dafa dëgg yàlla ñëpp defar nañ ba mu baax waaw man dama influenceur. moo ma jaaxal <laughs> gars yi lan moo tax ñuy taf sa photo fépp naa dañ laa dañoo tere mbaa ci mu film te man xam naa ne. fan lañ ko taf yëgu ma ko sax. TikTok yaa ngi fay seef saf saf. ah yëgu ma ko sax man dama influenceur. moo ma jaaxal waaw man dama ñëwoon en tant que artiste soutenir suñu système bi yàlla. merci dama influenceur ok merci. merci.

bro. Aïda naka bu ça va. naka bu tranquille. cool. Aïda. hamburger. Aïda sa papa ñëw na. tranquille. ça va. ngay def. Aïda sa papa ñëw na. complètement. Aïda sa nijaay ñëw na. si. comme représentant Abbas waay complexe tey daa liggéey borom complexe bi jigéen ji nangoo liggéey jigéen bi fonk borom kër fonk say mbokk mën a terle Aïda Samb bu baax alaaji Ismaïla Baye dama ne ko complexe yi dina bari dana gën a bari alcool bi dina bari li koy may xam bañ laa piis complexe yi day bari dama ne complexe yi dana gën a bari alcool bi dina gën a bari te kat moolu baay waaw ñoo ko fekkoon Mbàkke jigéen ju baax jaa ngi noonu di door a yegg Aïda Samb ñëw na borom complexe bi ñëw na jigéen ju gore jaa ngi noonu di door a yegg si nga xam ne bu wayee mu neex ñëw na bu wayee mu neex. waaye bu ubbee bu dikk. waaye bu jëfee mu bari. waaye Ismaïla bu ubbee bu dikk. waaw ubbi complexe. waaw dem Dubaï. yu mag yi. waaw indi yi. waaw ñu leen dalee sanse. waaw bu baaxee rek complexe ay say daal. waaw nan la ko defee. te nee na da nga wan ni. waaw jigéen la. waaw waaye artiste waaw waaye gënu dara lu liggéey. liggéey la jom jom. fulla fit fayda ngor personnalité loolu rek nga lépp ngi ci Aïda lépp ngi ci yow te Ismaïla Mbaye waaw xam nga Aïda lii mu def waaw Aïda lii mu def waaw dafa war a ni waaw waaw jigéen waaw warula yem borgam bu yem ci benn affaire waaw waaw jigéen daa war a yaatu waaw waaw jigéen daa war a dugg ci lépp waaw waaw jigéen lépp lu jëm ci jëm waaw Aïda sa loxo ngi ci biir loolu war a jëm ci Modou Mbaye ah, sa loxo ngi ci biir Modou Mbaye loolu war a waaw réew mi ku baax ku ne ngi fi ku baax ku ne ñëw na waaw tubaarkalla maasàllaa Serigne Abass Diadio Abass Diadio Ismaïla Mbaye baax lool xool Modou Mbaye dama ne tey jii waaw ku baax ku ne waaw ñëw ba ci boutique bi waaw waaw xam lu waral loolu lu waral Aïda waaw Aïda waaw digganteem ak doomu aadama yi waaw waaw rafetal la digganteem ak moroomi artiste am waaw waaw waaye rafetal la digganteem ak sénégalais yi waaw waaw waral boutique bii waaw complexe bii waaw nekk fii ci booba waaw Ismaïla Mbaye dina yëngu de Modou Mbaye li ko yëngal xam nga lu mu doon waaw Aïda laaw la cet waaw fexe na laaw la cet di réew mi waaw ba ñëpp ko bëgg ñëpp ko bëgg amul fenn sasente waaw amul kanam amul grand place ndox ndaag ça va ça va bien merci. waaw demal si kii nga toog ma ñëw non naa la jëlal lu mel nii